xam nga dafa am loo xam ne ni dañ koy delloo ki ko moom mooy président de la république parce que dafa ñëw 2012 réew mi nekk ci ay xat-xat yu métti ci wàllu courant non seulement mu réglé ko mais mu fekk li fi toll woon ci courant mu def daanaka boo ko defoon ñetti pàcc ñaari pàcc yi mu yokk ko maanaam mu jëlee courant bi ci 500 mégawatts indi ko ci 800 mégawatts ku mel noonu nag su fekkee da nga ànd ak moom te yàlla def ci sa biir commune. ñu def fa benn centrale boo xam ne am na trente mégawatts dañu ne da ngay da ngay jàpp ni li muy def. yow boo defee saw boo bayee sawaar góorlu ci mën nga dem ba yow li mu bëgg nga defal ko lu ko ëpp parce que président dafa def dafa décliner programme ci yoonu yokkute bu leen ko fàtte wax ni dama bëgg àll bi ma yóbbu taux d'électrification rural bi bu dee téeméeri dëkk la juróom-benn fukk yi am am courant fii ci mairie Ndakaar fi mu nekk am na ñaar fukki dëkk ak juróom ci téeméeri dëkk ak euh, fukk ak juróom yoo xam ne am nañu courant mais am nañu programme boo xam ne mi ngi dox te fi mu nekk nii inscrit nañ ko ci programme bi soit ASER soit convention 20 numéro 2 boo xam ne nii jàpp na ni am na fukki dëkk ak ñaar yoo xam ne war nañ leen def pare nañu pour def leen kooku boo ko boolee ak ñaar fukk ak juróom-ñaar yi day nekk fanweeri dëkk ak juróom-ñeent kon sorewuñu moom li mu waxoon mais ñun nag comme am nañu chance am centrale lan la ñu war a mën a def pour li président bëgg. ñu bañ a toog rek ni yàcc di ko xaar mais ñu xool ñun lan naka la ñuy bayee suñu waar ci tool bi loolu moo tax bi ñu amee suñu xarit ab Abdou Fall mu nekk koo xam ne léegi xam-xamam daf ko jël euh, dugal ko ci wàllu énergie renouvelable te ñëpp léegi ràññee ko ci parce que projet bii ñu def fii sax ci mairie Ndakaar ku nekk xam nga ni loxoom moom moo ci nekk ba mu egg egsi fii mu ci mu am ci ay contact ay nit yoo xam ne ñu wér lañu yoo xam ne dañuy yor seen alal te bëgg investir ci domaine boobu ñu lëkkaloog moom pour que ñu mën a def projet yoo xam ne nii bu ñu ko defee dinañu mën a jël dëkk yëpp yi nga xam ne nekk nañ ci mairie Ndaxaar ñu fexe ba yóbbu fa courant yóbbu waxuñu yóbbu courant rek pour nit ñi di taal naan am nañu leer wala lamp yi leer na mais ñu seet forage yi nga xam ne nii dafa mën ay ONG yu fi nekkoon gasoon ko. te mu nekkoon ay pompe manuel yooyu yëpp ñu équipé ko ak ay pompe solaire ba nit ñi di mën a xëcc ndox mi moomu dëkk bi ñu di ko béyee su ko defee mu yokk koom gox bi loolu mooy li nga xam kon nag su fekkee ni yàlla dafa daf la taccu da ngay fecc bala muy téye loxoom te nag yàlla daf ñu taccu moo tax ñun ñëpp ñu jóg dëbbandoo pour mën a fecc pour li nga xamee bëgg nañ ko te bu ñu ko defee muy njariñu askan wi di njariñu doomu Mérina Dakhar di njariñu Kajoor dañu bëgg Mérina Dakhar nekk exemple ci commune ba bu ëllëgee ku kuy dem seet seeti bailleur de fonds da nga naan ko mën daal dama bëggoon rek nga defal ñu comme numéro mel boo niñ defee comme numéro mel rek affaire bi dina baax te loolu xam ngeen ni marché bu rëy la kon nag pour ñu mën koo plaider dem seet ñu ñu ci jàppale indil ñu ko ñu ànd ak ñoom liggéey te def ko ci amin bu sell ba nga xamee ñëpp dañ ci gis seen bopp yaakaar naa ne loolu mun nañ ko tudd nañ fi koppar benn milliard ak lu teg jëm waaw euh, projet la boo xamee un milliard sept cent millions ñu def ko bi nga xamee ni jot nañu contact yi te Abdou Fall indil ma ko dañu def suñu requête yóbbu ko Union européenne ñoo ngi koy topp mais dafa am leneen lu gën a neex sax lu ci topp dañu am ay partenaires portugais yoo xam dañu ñëw ni ñoom am nañu xaalis ba pare am nañu vingt millions d'euros ñoom li ñu bëgg mooy ñu wax leen signé ak ñoom. jóge ñu signé ñoom ñu ñëw dëkk yi nga xamee ni yëpp ñëw nañ fa ñoom dinañ ñëw sax bala muy yàgg dina ñëw dëkk wër dëkk bi yëpp bu ñu waree dëkk bi euh, sama jarbaat bii di Tabaski Fall xam na Kajoor dinaa ko booleeg ñoom mu ànd ak ñoom bu ñu demee fu ñu war a dem ñu dem fa bu ñu ko xaymaa natt ko ñu ba xam ni nangam lañu ñu war a génn ci alal ñu toog ak ñoom signé ñoom ay convention yu leer su ko defee yëf yi mën a dox. courant nag kenn du ko def rek di ko sànni soo ko defaree da nga bëgg ko jënd la question de la solvabilité mooy ñi ñu koy jox ndax mën nañ koo fay ci ban njëg lañ lañ koy joxe est que bu ñu leen ko joxee dinañ ko fay loolu tam dafay bokk ci étude bi ndax mbir boo ko bëggee te def te boo ko defee mu sax dangay seet li ci màcc yëpp nga jàngat ko boole ko ci parce que loolu mooy doxal mbir mi loolu moo tax ma am yaakaar ni. ci kattanu yàlla incha allah li nga xamee ni moom lañ fi wax tey yàlla dinañu dimbali ba loolu ñu mën ko def. si rafetlu jéego yi nga xam ni Sénégal mi ngi koy def tey si wàllu courant parce que euh, président Macky Sall dafa bëggoon dafa dafa dugaloon si programme ni dafa bëgg téeméeri mégawatt yu ñuy liggéey yu nekk ñu fexe ba ñaar fukki nekk xeetu courant boo xam ni du du lor. waaw courant bu ñu jëlee si jant bi wala ñu di ko si ngelaw li wala ñu ko jëlee si ndox mi wala ñu di ko jëlee si gàncax bi loolu loolu la tubaab di wax énergie yàlla def tey jii euh, ten euh, Mérina Dakhar bokk si gox yi nga xam ni centralu solaire boo xam ni si jant bi la ñuy liggéey courant bi bu fanweeri mégawatt la ñuy la ñuy la ñuy sumb war koo doxal te incha allah si biir 2017 bi war na génn alors donc euh, loolu. lu ñu waroon bokk pour population yi la ñu xam jéego yi nga xam ne réew manqué def di ko jaarale si gox bi mais li nga xam ni aussi moo ëpp solo aussi si jotaayu tey bi mooy euh, tey jii si wàllu xam-xam am na ay njumtuwaay yu bees yu nit ñi mën a jëriñoo ba nit ku nekk si biir këram ak bërëbu liggéeyukaayam mu am ay machine yu koy may mu toggal boppam courant bi muy lakk bi muy soxla si biir këram alors loolu nag la ñu ànd ay partenaires yoo xam ni ñii seen xam-xam dañ si am xam-xam di si liggéey ñii dañu amee alal boo xam ni mën nañ ko see def ak machine euh, technologie bi muy laaj lo waxtaan woowu la ñu waroon def tey wax dëgg yàlla liñ fi dégg dal na suñu xel te am nañ si yaakaar bu baax a baax